bismillaahi rahmaani rahiim ñu dem ci bindub fiq ci muxtasar xalil euh, ñi ngi nekkoon di wax ndox li nga xamante ni du ko yàq xam nga woon na la ndoxu mutlaq maa sadaqa ale sa sadaqa ale ismu ma in bilaa qaydin wa in jumaa min nadaw min nadan aw nangam aw nangam aw nangam yëpp xeeti mu baalax li ko yàq ba léegi kon mi ngi ataf ci li nga xam ne du yàq ndox aw bi mu jaawiri nee na ndox ba tey bokk na ci li nga xam ne du ko yàq ndox moo xam ne xet gi dafa soppiku ci lu ko lu ko jege waaye nag xet gi lañu wax fii xet gi rek dañ ko ci lañ ko tënk ndox bu fekkee xet gi moo soppiku ci loo xam ne dafa dend ak moom dong comme medd mu dend ak moom wala xobi garab wala xeeti parfum wala dara lu dend moom soppi xet gi képp ndox moomu du ko yàq aw bi mu jaawee di kon bu fekkee li ko soppi ndoxu lax bu fekkee xet gi dafa soppiku ngir lenn xetuk lu ko jege ba noppi taxali koog moom waaye dañoo jege rek nee na xet googu soppiku googu mu ko soppi du dindi taxawuriyam moo tax baa googu borom xam-xam yi dañu baa sababiya la mooy taxayyara riixuhu bi sababi mu jaawiri shay'in min fasil anhu maam xet gi soppiku na ngir sababu mbir mu ko jege ba pare taxali koog moom lu mel ne gàncax. wala bu bon sax ma mel xeeti medd ak yu mel noonu kon loolu boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne ndox moo xam ne xet gu dend ak moom tàqali koog moom ba noppi eh, ba noppi soppi soppi ko loolu nee nañ dara nekku ci kon loolu moo la bëgg a wax ne aw bi mu jaawee yi waaye ngeen bàyyi xel ne aw bi mu jaawee yi loolu ci xet gi rek moo ko moom kon looloo tax ñuy wax. wa in bi duhni laa saqa mi ngi andi ba tey di wane ne xam ne du yàq ndox ba léegi ndox ba tey bu fekkee xet gi dafa soppiku donte li ko soppiku li ko soppi diw la goo xam ne dafa taqaloog moom goo xam ne dafa taqaloog euh, sat ci kaw ndox mi masalan diw goo dafa taqaloog moom ci kaw ndox mi waaye jaxasowut ak moom nag nga xam ne soppiwut cafka gi soppiwut melokaan wi amaa nag bu soppiwut lii nag xet gi ci lañ wax ba léegi rek moo tax mu ne wa in bi duhni laa saqa mooy ndox li nga xam ne moo den ak moom du ko lor jiwaar googu bu fekkee jiwaar la goo xam ne dafa ànd ak tàqalikoo comme liñ misaal léegi aw taxayar bi mu jaawee di fii donte sax day jiwaar goo xamante nii dafa taqaloo la maanaam mun mun fasil mulaasiq la lii nag mu joxe ci misaal mu xorom mooy diw goo xam ne dafa taqaloog ndox mi noonu man na lu nekk ci kaw waaye nag jaxasowut ak moom su boobaa soppi gi mu soppi xet gi dong nga tax ñuy wax fii nag du ko lor loolu mooy li nga xamante ni mooy li gën a wér donte nag lenn ci boroom xam-xam yi weddi nañ ko am nañu jàpp ne ndox mu mel noonu euh, da koy yàq waaye nag Cheikh Khalil ci li mu waxee fii moom nee na loolu du ko lor waaye nag loolu ngeen xam ne masalatu xilaaf la aw bi raixati qatiraani wiaai musaafir andi na ay mafhum yu xorom yoo xam te ni misaal la rek nee na ni ko noonu ba tey xet gi ba léegi ci lay wax bu fekkee dafa soppiku ci xeetu qatiraan qatiraan di xeeti godron la wala yu mel noonu xet goo xam ne ci ndab la nekk ndabul tukki kat nee na tukkikat yi dañ daan faral di yoral xam naa bu yàgg la woon ay ndab yoo xam ne dañ ko surtout niti àll yi sax dañ ko daan tayee ci suuf ak xeeti godoron xam naa dañ ko daan sakkee nee nag nit bu nekkee ci tukki xam naa dañoo dañuy dafa mel ne rek ku nekk ci tukki da ngay gën a aajowoo tumuranke moo tax ndab ndabam li nga xam ne niti baat yi seen ndab yi nga xam ne dañ ko tay ak godoron ak xet des fa nee na loolu danañ ko jéggal waa kër ahlu baadiya yi nag tax ñu wax lii moo tax masala mi ñu bari bari dañ lii ci niti àll yi képp lañ ko jégal ngir sonn gu ñu sonn duñ am yeneen ndab loolu la yenn boroom xam-xam yi wax am nañu jàpp lañ koy jégal waaye li gën nekk ci àll bi rek koy jégal ca it na ngeen ne xet gi dong nga tax ñu wax fii moo tax mu ne biraaixati qatraani wiaa i musaafirin waaye li nga xam ne mooy taxqiq ci masala mi mooy dañu xool nit ki nu mu sonnee ak yu mel noonu bu dee nit koo xam ne dafa soxla woon ndab li loolu nga xam ne amul yeneen ndab kooku moo ku nekk ci baadi bi ñoo bokk àtte rek mooy kon danañ ko jéggal lu mel noonu mooy nga nekk ci àll ci daara ju xam ne tubarankee na nga xam ne ndab yu bare bare amu fa benn ndaba fa nekk wala ñaar gi wala genn seta la ci lañ ko tayee su boobaa kon la cay des ca xet ga di ko soppi loolu la bëgg wax ne jéggal nañ ko rek loolu mooy maanaam masala bi waaye nag jubluwuñ ci eh, ñun ñi nekk tey ci biir taax yi nga xam ne yi bari na ndab yi bari na jariñookaay yi bari na su boobaa kon loolu moom kenn du ko jéggale Euh, boo demee ci téere bi ñax kafaaf da nga gis Cheikh Mahamad Mawlud masala bi moom lay junj naan laa laa tattaqil urbu awaaniha wala taslamu min taamin wa riixin sahula euh, bu njëkk arab yi mooy niti àll yi rek seen ndab yi foo ko fekk rek euh, yu mel nii da ci daan xaw a bari ak yu mel noonu bokk na ci yi nga xamante ni ba tey bu soppee ndox mi du ko yàq mooy bi mu taw wala jëmin ndox lu ci juddoo bu ko soppee du ko yàq lu mel ne mbaalaa mbaal toxla mooy yu werte nga gis ci ndox mi loolu lépp dañ ne dara newu ci nekk doon ba tey jën yi dund doon sax dafa jur ci biir loolu kon lu juddoo ci biir ndox mi loolu du ko yàq waaye nag jën wuy dund lañu wax nee nañ nag bu dee jën wu dee moom bu ko soppee alaa kulli haal bokk ci taxut di wax aw bi xaraar yi ni ki doon ba tey ndox bu fekkee li ko soppi bi xaraar mooy fam dëkk la mooy fa ndox mu dëkk mooy fam sax looloo ko soppi comme ndox moo génnee ci géej wala yu mel noonu wala dex muy saf xorom wala lu mel ne tiin ban wala kibrit wala xadit yooyu nga xam ne day génne ci nga xam ne bérébu ndox ma fa mu dëkk la loolu moom su boobaa dara newu ci dañ la ko jégal ndax ba tey jox nañ leen misaal ndox bokk na ci li nga xam ne bu ko soppee du ko yàq mooy loo xam ne dafa soppi ko ci xaraar mooy fam sax moo ko soppi wala loo xam ne da cee juddoo wala yu mel noonu kon bokk na ci masaa yi li nga xam ne dañ cee settee ndox mi loolu xam ne bu ko soppee loolu kon dara newu ci Euh, ndax euh, li lépp it boo gisee ñu yombal ko rek mooy mucc ci dafa jafe maanaam mucc ci dafa jafe mucc ci dafa jafe maanaam ndax euh, jafe-jafe moo am ndax ndox mi bu dee fa muy jóge la soppee ko nii nga bëgg nekk ne ndox mi baaxut su boobaa da koy da koy da koy da koy da koy sonal nit ko noonu ba tey lu juddoo ci ndox mi la jën yoo xamante ni dex gam jóge wala kii ba mu jóge moo moom ñoo ànd mu am xeeti gaar-gaar yu mel noonu ba tey boo ko bëggee tere surtout mu nekk koo xam ne amul may ndox xam nga loolu da nga koy sonal te xam ngeen ne diine euh, yàlla day yombal na ko daal lépp loo xamante ne jafe na ba mënta ñàkk rek yàlla da koy teggil doomu adama bi kon loolu mooy masala moomu yi nga xamante ni bokk ci yi nga xam ne du yàq ndox mooy loo xam ne da cee juddoo wala loo xam ne sax kam sax hmm, jërëjëf loolu borom kafaaf di junj ba tey bi maa aw bi maa yutaxarul xadasu wa najsu bi maa lam yataxayar aw taxayara bi maa nashaa minhu aw bi muksin aw mala aw riixi ma jaawarahu munfasila mooy masala mi ñu doon jàng ñëpp rek moom lu Muhammad Mawlud way noonu